leneen lu bees tàbbi na ci mbirub Aïssatou Diop Fall ak kii di ba Ngom dama leen di bàyyi ngeen seetaan vidéo bi boo leen ñëwee ma wax leen loo leen mësta xam ñu dem te ñëwaat. parce que temps yi si commentaire ak ak ba ñu naan Aïssatou Diop Fall ak Farba Ngom ñaari taat yu miinante la waaye ñoo tey. Penda maa Farba Ngom ñaari taat yu minante ñoo tey. mbokk yi ñoo ko déggandoo ginnaaw kàddu yi nga xamante ni doxoon na ci diggante kii di Aïssatou Diop Fall ak Farba Ngom ba baatu juutal génn ci ay Diop Fall nag génn na ni ki tey daal di tontu ani la la tontu ca boomee biir ñoo ko déggandoo nee na. képp koo xam ne mu ngi wax ni moom ak Farba Ngom seeni ay taat miinante nañu moo tey ndax ay Diop Fall tontu bii la waroon tontu am kàddu yi moo ko daal di jaxase ba mu tont tontu boo xam ne waroo ko woon tontu maa ngi leen di laaj question bi ngeen tontu ma ko ci commentaire yi ndax nit ki boo nekkee ci néegu sëy wala nga nekk sax si buum dafa am kàddu yoo xamante ne donc ko war di ko éviter ndax dañuy wax ni ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la te lu waaye ren ni sa loxo lay naaj te kàddu balu fetal la bu xësee ba génn rek daanaka génn na kenn mënut a dara mbokk yi bi moo nekkoon premier partie bi deuxième partie ñu ngi ñëw analyser vidéo bu baax a baax a baax wéy leen di abonné ak partager suñu ay vidéo saa su nekk bés bu nekk fii ci Team Top Cas 221